des investigations criminelles ñu ngeek honorable député Abba euh, mu wax ñu aussi di teewaayam tey euh, fi nga xam te ni euh, mooy ci ci dig bi pour soutenir sa ay ay am ay collègues députés waaw pour soutenir sunu ay collègues députés mais aussi pour dénoncer lu nga xamante ne injustice la parce que ñaari parlementaire xeex biir hémicycle bi du guléet te loolu boo amee règlement intérieur bi mooy définir la fay xaw ñaari parlementaire yu xeex ci biir hémicycle bi en pleine session gisuma lu si yoonu justice di def et je pense que ñun li ñu choqué mooy PV bi président assemblée nationale def di sàll suñu ay camarades il faut pas que nit ñi profiter ci le fait mu am xeex entre góor ak jigéen je pense que bu ñu demee ba ne Sénégal ne parité bu ñu duggee si hémicycle bi amul góor amul jigéen y' a pas de parlementaire homme y' a pas y' a que des parlementaires bu ñu xeexoon du si yoon. ñaari góor bu ñu xeexoon du si yoon donc bu ay góor ak jigéen xeexee foofu mais parce que débat yi moo ko indi du ñaari ju cokkaasante ba histoire seen bi débat moo ko indi Massa dafa président bi yow président attewoo parce que depuis keroog ñu ngi saaga waxoo kii ne ko maa tey mu indi xeex donc session bi ak état bi li ñuy liggéeyee moo indi yu mel noonu mais ñun gëmuñu ne yoon waroon na ci am ñun d'accord nañ assemblée jël ay sanctions contre nos collègues ñun nangu ko parce que nangu nañ ne aussi li xew xaw na choqué ñëpp yëpp nangu nañ ko mais ñaari député yu xeex bi session gisuma lu mu def fii digg ba ba si am yoon. waaw euh, que xeex xuloo moom yàgg na assemblée nationale yàgg na fa trop. bu yàggul dara maam Diarra Fam nekku na ci victime. Hmm. pourtant yi ci yoon. dóor nañ fa Omar Sarr président Ousmane Sonko xeex na fa et tey ñun ñëpp bu ñu toogee assemblée li ñu njëkk wax dañu naan bu fekkee ñun ñoo nekk euh, juróom-ñetti fukk ci biir assemblée député yeewee te di daj li ñu daj ba fa Ousmane Sonko nekkee benn ba fa Cheikh Bamba Dièye nekkee benn ba fa kay na kay nekkee benn lan lañ daj foofu. ndax booy wut wayadi ak reewande mais assemblée am na benn bokk seen ay député yoo ne mais loo ko jëndee am nañ lu ko lu ko raw nekkoñ fa lu saaga ñu xas ñu wax ñu wax bu ñaaw parce que pour ñoom wax opposition wax bu ñaaw mooy déstabiliser ñu wala def ñu loo xamante ne dinañ néew parce que ñoom gëm nañ ne actuellement mën nañ def lu tax askan bi juboo ak ñoom parce que ba tey nanguwuñ seen biir xel ak seen biir xol ne ñoo gañe élection législative incha allah bu soobee yàlla dañu am mbéteel 2024 parce que nag ñu gañee la Dakar gañee la Pikine gañee la Guédiawaye gañee la Ndar gañee la Touba gañee la Mbacké gañee la Ziguinchor gañee la Kaolack nga ne élection Sénégal mooy yaa ngi fooyee sa xel te ñun nag on sérieux def nañ mission bi ñu waroon def te je pense que démb ci DPG bi sénégalais yëpp seetaan nañ DPG nu damay xam nañ la différence entre les deux groupes parlementaires li des nag mooy ñun nangu nañ gëm nañ yàlla li ñuy wax daañu ko def ci ngor ci yar ak ci teggin mais loolu dëgg du yoon ko mës a nangu fii président assemblée retiré wul PV parce que démb bind nañ ko pour dénoncer son PV bu fekkee retiré ko wala dañu bëgg jël suñu mandat député suñu collègue yi incha allah daañu ñu dégg. kon président assemblée dafa jàng. mais PV bi c'est à charge xam nga mënoo toog ñun gis nañ ñun ñoom li fa xew mais mënoo bind benn PV nga ne la député Massa dafa jékki-jékki rek wàcc si bi dem fekk Amy Ndiaye dóor ko mais lan ko Amy Ndiaye wax moom dóor ko. nga ne jékki-jékki Mamadou Niang ñëw fekk mu taxaw mu weex ko mais ñëpp gis nañ ni Amy Ndiaye moo ŋàbb ab chaise songu songu euh, Massata kii door ko coup de pied de riposte loolu mooy PV PV mooy da relater li xew foofu mais doo ne diw li la def ak diw la def et c'est pas qui est pas normal te li may njëkk dénoncé mooy que président moo doon taxaw ne leen parité amul parlementaire homme amul parlementaire femme fii yaakaar des parlementaires et puis li ñu doon xaar ci moom mooy par rapport ak ni ñu ko falee mu am de la nekk kiy defar le pouvoir législatif tey quatorzième législature bu bu bu yàqoo mais du du Abala jagadi wala Guy Marius Sagna wala Abass par son président qui a kon nag moom moo waroon defar moo waroon jubóole moo dajale ñëpp et je pense que wanewul loolu moo tax PV bi choqué ñu. merci beaucoup honorable ñu ngi lay sant di la gërëm euh, ci li nga xamante ni nii euh, wala gars yi nee nañ nga revenir ci en en français s'il vous plaît. Ah, ah, ah. en <laughs> Du tout, du tout. On pense que leur place, c'est pas ici. D'abord parce que c'est deux parlementaires qui se sont battus à l'intérieur de l'hémicycle en pleine session. C'est pas la première fois que ça se passe. Maintenant, il faut pas que les gens nous, nous imposent un sentiment de victimisation, soi-disant que c'est un homme et c'est une femme. La parité a fait qu'il n'y a plus de parlementaires hommes ou parlementaires. Il n'y a que des parlementaires. Donc si deux parlementaires hommes s'étaient battus, on ne serait pas là. Non? Je pense que ces deux parlementaires qui sont battus et les sanctions sont prévues par le règlement intérieur de l'Assemblée. On aurait dû considérer que quand le pouvoir parlementaire est en, est mécanique, en plein régime sur son travail parlementaire, le président aurait dû considérer que c'est un fait parlementaire et qu'aucun autre pouvoir n'a à considérer cela. Le jour du procès Barthélémy Diaz, on est allé là-bas et nos pins. À l'entrée, on nous a dit de une autorité du tribunal est descendue en nous disant que vous devez les enlever parce que ici on est dans le pouvoir judiciaire. Vous n'êtes pas chez vous. On a dit ok, on a enlevé. Mais quand on est à l'hémicycle, il y a, donc on n'a pas à aller traiter un problème qui s'est passé entre deux députés au niveau du pouvoir judiciaire. Et ce qui nous a le plus choqué, c'est le PV du, du président qui est un PV tendancieux à sage contre nos collègues. Je pense que on ne peut pas faire un PV en disant que Massata est descendu subitement du public pour aller donner un violent coup de poing à Amin Qu'est-ce qu'Amin a fait Qu'est-ce qu'Amin a dit Il peut pas dire que Mamadou lui a administré un violent coup de pied. Mais tout le monde a vu Amin prendre une chaise et charger les gens. Donc s'il fait un PV équitable, qui regarde les faits, on accepte. Mais ce qu'il a fait, c'est un PV en préparant Merci.